xët mu njëkk journal bi liggéeykati kër docteur yi di les de la santé ñoo woote ab grève générale nee nañu tey ji ci alxames yi dañuy toog fase seeni loxo duñu fase xànc ak morom sage yi ci réew mi te banqaasoo ci nguur gi ñu naan leen sage-femme bi nee nañu ñoom maternité sans sage-femme lañu doxal tey ji ci alxames ji seen naataangoy sage yu taqal ba ñu taq ripp ci faatuk asu soxna ci hôpital bu Louga la naqarlu a mobilisation dem taxaw ci seen wet l'observateur nañu ñoom sage-femme d'État yi ci réew mi démb lañ doon conférence de presse wax fa nag mboolem lu du coono jafe-jafe yu ñuy jànkuwanteel ci seenub liggéey mu di niñ leen dëkkee agressé viol gi ñuy dund menace gi ñuy dund ak condition yu bon yu ñuy liggéey seen der bi ñuy yàq ak ni ñu leen di ŋawta ŋawteeka jaabaajoo ngi ci réseaux sociaux it ñaawlu nañu ko association des sages-femmes l'observateur nee nañu ñaawlu nañu it kàddu ak taxawaayu ministre de la santé Abdoulaye li xew ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga ci seen gis-gis génn gi ci Abdoulaye Diouf Sarr génnoon ak la mu ca wax mënoon naa nag ñaar fukki maternité benn yi nekk ci réew mi yëpp la ñu fas yéene paralysé tey ji ca maternité yi ca Louga moom l'observateur nee nañu la fa am amul sage femme yu jàpp lobs nañu gis nañu fa ay jigéeni biir yu toll ci accouché waaye dañu leen mujj évacué ca Ndar Ndar ba Ndakaaru jàpp fépp ci réew mi direct ci news mi ngi ñuy wax ne am paj du am ci hôpital public yi waa ànd gësam ak collectif des travailleurs de la santé ak action sociale nee nañu lu dul urgence ak service minimum duñu ko laal tey seen bëgg-bëggit yéenekaay bi ne nañu bokk nañ ci yu jëlee kii di Abdoulaye Diouf Sarr ca bopp ministère de la santé docteur Souleymane Loukar bu hôpitalu Louga di leeral ci direct news ne rapport audit bi tukkee ci faatuk asu soxna rapport ba waxul fenn négligence docteur Loukar nee rapport ba ay insuffisance la wax chef service psychiatrie bu hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga di ñaan président de la république Macky mu jël ay responsabilité am dàq Abdoulaye ndax lu yàqu ci système sanitaire moo ñuluk sage-femme yi ba tax ñu soobu ci defante sage-femme yi nee nañu bésub tey ji wérul ju yaakaar doo accoucher ci réew mi réew mi quotidien bind ne secteur santé bi salfaañoo na fajkat yi xëy nañu ab grève général nga dem ci hôpitalub Louga grève ñetti fan la fa gaañi xëye sage-femme yi ci réew mi réew mi quotidien nee nañu amul lu ñu yàkkul démb ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ci jamono jooju yéenekaay bi nee nañu li gis moo di Macky Sall muy ndamoo ak akañoom bilam ci wàllu santé ak am Macky Sall nee na nañu ko càmbaral doxi doxalinu barabu fajukaay yi ci réew mi biir ak biti defal ko ci rapport jox ko ko jox leen ma le quotidien ma wax leen li xewoon ci ndogu li président Macky Sall woote woon keroog dajale woon ca mboolem leader yi benn bokk yaakaar yi ndogu plus la ko le quotidien tuddee fukki waxtu yi mu toog nañu ca di ca waxtaan ci élection législative yi ñu jëm fali leen Macky Sall waxee ne bu ñu booloo kenn att nañu waaye bu ñu féewaloo dara duñu kam sursoi nañu moom Macky Sall dem na ba yegg ak ñoom ci di leen wax ne in fokk dañuy benn bokk benn jëmuwaay ñu bëggee gagné élection législative yi te bu réew mi ci élection législative yi ci la wékk le témoigné nañu est-ce xam na ne maître Wade taxaw na tem ci wekki lépp lu mu daaj moom Macky Sall journal bi dañu xamal ci xëtamu njëkk ne jàmmoo ga woon ci diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall jàmmoo ga jeex na l'info nañu moo taxit waa parti démocratique Sénégal génn nañu ci seen patt ak seen tekk gañu ne woon woote manifester ngir xeex li ñu jàpp ne Macky Sall ko nguuram ñoo ngi koy def ci réew mi te du yoon